Euh, bis bi li ko sabab nag euh, dafa nekk euh, lenn lu am tolo ci li nga xam ne li ñuy wax loi d'orientation de l'économie sociale et solidaire da koo tënkoon xam ngeen ne dafa am loi boo xam ne voté woon nañ ko biñ ko voté nag mu nekk benn jéego bu am solo ci liy doxal économie sociale et solidaire ndax économie sociale et solidaire dafa nekk loo xam ne dafa mos a am waaye nag ci wàllu état bi ni muy doxee dafa xawoon a timide maanaam fësuloon lool ndax li ëppoon ci côté boobu mooy ONG yi ñoo ëppoon liñ ciy yëngatu euh, voilà ak association yi en tant que tel euh, loolu nag moo tax euh, ñun bi ñu ñëwee ki ma fi remplacé moom jotoon na am ñett ñoo xam ne agréé woon na leen ci wàllu agrément ESS ñun nag bi ñu ñëwee ñu dolli ci 49 mu tax day ñu toll ci juróom fukk ak ñaar organisation yoo xam dañ leen jox agrément ESS léegi agrément boobu nag njëriñ li mooy dafay tax benn ñu mën a xam kan mooy ESS ak kan moo ko nekkul su ko defee bu ñu xamee ñi ko nekk ñun dinañu permettre ñu mën di leen suivre benn di leen encadrer di leen jàppale jàppale bi nekk na ci fànn yu bëri mën na nekk appui boo xam ne day nekk organisationnel mën na nekk appui institutionnel mën na nekk appui technique comme mën na nekk appui financier muy ñeenti xeeti appui yi nga xam ne ñoo am su ko defee foofu nag boo defee lii nag mooy préalable mooy li jiitu Euh, boo ko defee ba pare di nga mën a xam nag ñooñu naka nga leen di toppee leneen li it mooy dina tax ñi nga xam ne bëgg nañu ñu jàppale leen ci ministère bi ñoom ñu mën a fexe ba ñoom it ñu wuyu ci sart yi ñu teg pour am agrément bi ndax ki ko am du niroog mukk ki ko amut euh, loolu benn la beneen bi it moo di ne day tax ñu mën a xam ni ñuy lëkkalook euh, yeneen ministères yi tey gis ngeen ne mbir mi sama collègue Alpha Ba di secrétaire d'État à l'encadrement paysan et coopératives moom laa ko defandool tey li ko waral mooy bu ngeen seetloo bu baax euh, économie sociale et solidaire wax naa ko toujours euh, dafa nekk économie boo xam ne euh, maanaam action bi en tant que telle dafa am ñaari taxawaay am na les cibles am na la fonction ñun nag fonction bi la ñu yore mais yorewuñu cibles yi cibles yi ñu ngi ci artisanat ñu ngi ci pêche ñu ngi ci agriculture ñu ngi ci élevage ñu ngi ci yeneen ministères yëpp moo tax ñun ñooñu la ñuy xool ñan ñoo ci nekk économie sociale et solidaire ñu mën leen a léegi su fekkee ne préalable bi gis gis nañ ne bokk ci duñ ko mën a appuyer su ko defee ñun nag rupture boobu la ñu indi moo tax ñu ne léegi dootuñu fi financer kenn euh, maanaam financement bi niroo seddale maanaam individuel di nga am mais dañ lay lëkkale d'abord ab coopérative nga xam xaalis boobu buñ la koy joxit yi dina xam ne yow yaa ko moom waaye coopérative bi moom mooy mën di xool ndax yaa ngi koy awale fi mu war a aw wala ndax aw na wala awul fi beneen bi it mooy dañuy mettre en place des volontaires comme ni ñu ko amee woon ci volontaire de l'éducation ak yeneen corps yi volontaire yooyu nag ñoom lépp lu ñu financé dinañ ko xam su ko defee bu ñu ko xamee maanaam euh, détournement yi ak li ñuy wax déperdition xaalis biy seey euh, léegi dina mën a wàññeeku ndax ñoom dañuy nekk interface diggante ñiy am bénéfice yi ñiy am euh, financement yi ak mutuelle yi wala banque yi ak ñun ñi nekk au niveau central su ko defee dañuy jox temps réel lépp li nga xam ne dañ koy def volontaire de l'économie sociale solidaire yooyu Euh, incha allah dina toll ci phase bu njëkk bi dina toll ci 1106 maanaam 553 yi commune yi benn bu nekk dinañ jël ñaari volontaire benn góor benn jigéen euh, su ko defee ñoom ñooy def boobu liggéey nga xam léegi ministère bi dootul am jafe-jafe maanaam dañuy am benn approche bu bu bu bu bu bu bu bu efficace bu impact maanaam approche boo xam ne day dem ba ci jeexital bi mooy li may wax euh, immédiateté léegi approche boobu dina tax léegi ñun fi ñu toll Dakar parce que dañ koy dañ koy dañ koy digitaliser parce que loolu président de la république son excellence Bassirou Diomaye ak le premier ministre euh, wax nañ ñu ko ne dañoo war a digitaliser tout le système parce que loolu mooy indi démocratie mooy indi transparence bu amee rek gis ngeen li jamono yi coow li am ci affaire euh, force fukki bi les les Covid li ko waral mooy nanguwuñ ko woon digitaliser mais bu doon tey loo xam dañ koy jox ña yelloo jaarale ko ci ay transfert d' argent kon nga ni benn ministre wala muy jaaxle ak seen i waaye ñàkk nangoo lu def lu mel noonu digitalisation moom moo waral li Sénégal jafe-jafe yi mu am ñun nag yooyu la ñu bëgg a dindi moom la ñu le président sant euh, Ousmane Sonko moom di ko suivre di superviser directement euh, tout le travail euh, ñun ñu war nag lëkkaloo ñun ministères yi pour vraiment dem ci résultat yooyu